jot nañ def CLD ba pare tey dañu doon def CDD ci département bi pour euh, pour euh, waajal ko ndax daaw organiser nañ ko waaye ci organisation bi dañuy dañuy saytuwaat la ñuy defoon mais dañuy xool ren aussi contexte bi nan lañ yan matuwaay la ñuy jël pour que dem ak dëkk bi gën a yomb ndax nit ñu bari ñooy ñëw nit ñu bari ñooy dem donc loolu war nañu fexe ba circulation bi gën a gën a gën a yomb waaye aussi yombal aussi ñu jóge ci ci réew ñuy jege comme ñoo ñu aussi ñu yombalal leen dugg bi bu fekkee dañ ñëw pour gàmmu si ak produit yi nga xam ni aussi dañ koy jëfandikoo ci gàmm gi ñu yombalal leen ko loolu douane dina ko def eaux et forêt tamit dina ko def ci wàllu woowu donc loolu jël nañ ci ay engagement yeneen engagement yi tamit mooy côté fexe ba wàllu cet gi ñu assainissement bi ñu ñu ñu jël ci ay matuwaay pour que pour ndax mesure prévention la ndax dañuy fexe ba nit ñi nekk ci béréb yu set yu sell pour que ñu mën a euh, gàllankoor jenn jàngoro yi donc loolu tamit jël nañ ci ay matuwaay ak service yi concerné yi ci wàllum euh, santé tamit couverture bi daañ ko renforcer donc euh, ci poste avancé yi ci ci ci ci ambulance yi ñu war a mobiliser yooyu am na aussi yeneen liggéey yu ñu def ci ci ci yoon yi pour pour gën a yokk kaaraange gi ci yoon yi mooy mooy aménagement yenn piste yi ak panneau de signalisation yi nga xam ne fa nga ci yoon bi nga xam ne diggante dingiraay ak euh, Taïba loolu aussi daañ ci taxaw ba sécurité routière bi aussi ñu mën ko renforcer donc service yi daal mën naa wax ni ñoom ñëpp obligé nañ leen pour fexe ba gàmm ren bi vraiment mu doon gàmm mucc ayib. wax dëgg yàlla sant nañ yàlla te gën nañ am yaakaar. defoon nañ CLD ci tay ba service yëpp ñëw jël fay ay engagement mais tey dañoo confirmer waat engagement yooyu ñu jëloon te dégg nga li préfet wax te dëgg-dëgg loolu lim ñu yokk mooy yaakaar nañ ne changement yu bëri dana am yaakaar nañ it soxla yu bëri yuñ tawatoon yàlla mën na ci def saafara eh, ñu ngi leen ñaanal jàmm moom bëgg-bëggam lay am waaye yàlla mooy dogal yàlla matal yëf yi te yewee nañ ko di dénk rek population yi ñu def ubbee ko xam ne kuy am gan yaay waaj dalal ko ñu ubbeeku pareel gan ñi pareel bés yi bés bi lépp lu mu laaj rek ñu def ko. dañuy am satisfaction déjà engagement yi ñu jël fi nga xam ne déjà liggéey bi mën nañ cee sóobu parce que lu demee ni cet gi assainissement bi donc lu demee ni ay matuwaay yi ñu war a jël aussi ci donc avec eaux et forêt et désherbage yi déjà services yi. engagé nañ ci pare nañ aussi dugg ci liggéey bi loolu moo tax mu am solo CDD li ci des nag euh, dañuy am yaakaar comme ni ñu waxee engagement yi services yi mais ni ñu demee au niveau du gouverneur peut-être que yenn yi nga xam ne yi am na ci matuwaay a jëlee. Hmm. boobaa nag en tout cas am nañ yaakaar parce que aussi donc nit ki yaakaar rek lay mën am par rapport ak li ñu dégg fii tey ñu am yaakaar ne wax dëgg yàlla am bu ñu demee au niveau du gouverneur. yenn matuwaay yi danañ am ba en tout cas gàmm gi ñu dugg ceeg euh, bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin ñun nag au niveau de la mairie bi euh, ñuy ittoo toujours mooy fexe ba dëkk bi set donc loolu moom mooy suñ première préoccupation ñu am sant yàlla bi ñu amee donc au niveau euh, de l'ICG engagement yu wér comme quoi ñoom danañ jàpp ci loolu ba dëkk bi set bi ci des nag mooy sécurité bi sécurité bi aussi wax nañ leen ne quand ñu jël def attention ren parce que gàmmu gi dafa tombeek aussi dafa sos trop ci poroxaan parce que poroxaan le le le le vingt cinq la gàmmu gi nekk le vingt sept mu nekk ñaari événement yoo xam ne yii moom euh, sécurité bi ak circulation bi waa ay matuwaay yu wér lañ ci war a jël pour que en tout cas du am euh, en tout cas pëccoxo moom dana am waaye ñu fexe ba Euh, wàññi le plus en tout cas difficulté donc aussi am nañ ci engagement donc l'ensemble des services de sécurité c'est yaakaar nañ nous en tout cas matuwaay yi ci war danañ ko danañ ko jël li ci des nag mooy comme grand rek wa COMAF parce que lii wax dëgg yàlla ñoom c'est liggéey set na sell na rafet na ci lépp pour luy defar gàmmu gi muy Taïba muy muy muy Médina Baye